bu mu dox ci boroomam euh, ci jëf ci dund goo xam ne dund la gu goo xam ne lépp kawteef la moom sëriñ bi ci boppam xamoon na ne ak dundam dund la gu yàlla mësta may mbindeef te dootu ko ko may kawteef la gu bokk ci kawteef yonent bi sallallahu alayhi wa mu daan wax ne xustu xayaatan laa turaa mujizatan baanat di usni xayri am naa dund goo xam ne de deesu ko gis ci kenn ku dul man muy kawteef gu feeñ ci mujj jamono bokk ci kawteefi yonent bi sallallahu alayhi wa mu daa sant yàlla lool ci dundam bi di wax ne lahu shukuriya ala xayaati abdan xadiman faaza ayaati mu ne sant na yàlla bu baax a baax ci dundam ndax dund gépp mi ngi ko nekk jaamu bi yàlla bu ko jaamu jaamu gu ko kenn mës jaamu liggéeyal bi sallallahu alayhi wasallam liggéey bu kenn mës sa liggéeyal yàlla may koy ci alquran lu yéeme muy dund goo xam ne li mu ci jëf rëy na lool te màgg dund la goo xam ne xàll na ci aw yoon yeesal ci diine ji yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeesal yoonu gaa yu baax yu jëkk ya xalaat ko ba mu leer naññi ba mu mel na ko yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi woon li wax ne taraktukum ma mahajjati albayda layluha ka la yaziqu anha illa halik bàyyi naa leen ci yoon wu leer naññi woo xam ne guddeem ak bëccëgam ñooyam ci leeraay kenn du ko wàcc ku dul ku nar alku sëriñ bi yeesalaat yoonu yonent bi ba delloowaat ko fa ko yonent bi bàyyi woon ci leeraay xam ne kenn du wàcc ci yoon yu mu rëddoon ca nam ko rëddoon ku dul ko nara alku loolu la ko Cheikh Mouhamed Fadil di wax naan jaddada diina fa adha ka annahu qad banaahu mu ne yeesalaat na diine ji ba mu yeesaat peq ba mel ni sax tabax bu yees bu ñuy door tabax Cheikh Abdul Ahad Mbacké moom itam wax ne sëriñ bi sosul ab tariqa yoon wi fekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaam jaar ca la fekkoon mu ràpp mu xalaat ko ba mu leer mu jaar ca jaarale waat ca eh, jaarale ca ña mu àndaloon kon loolu bokk na ci li mu def ci dundam di lu rëy rëy muy bàyyi gi fi bàyyi yoon leer naññi mel na ko yonent bi sallallahu alayhi wa xale woon mu yar mbooloo mu baree bari teg leen ci yoonu jub sàkk ci ñoom ay góor yàlla yoo xam ne ku ci wéete woon jamono man koo àtte di wax ne ajaabani xayru baaxin fii xat tooba kulli wa raqaa bi ma li xaadi ak tooba yàlla nangul na lépp li ma ko doon ñaan jaarale na ci man sàkk ay góor yàlla ay aqtaab ay nit ñoo xam ne ku ci wéete jamono mat sëkk boroom jamono mu defar ci mbooloo mu baree baree bari kon loolu bokk na ci li nga xam ne def na ko ci dund gu tedd googu bokk na ci lim ci def euh, jihaar na ci ak nooni biiram jihaar ak bakkanam ak àdduna ak bànneex ak seytaane ba not leen noteel goo xam ne mënatuñoo fitar ci ko jaawartu bil furqaani rabbi al muin malaktu nafsiya wa zaxzaxtu laayin axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan wan qaada lil hawa wali safal janaan kon jihaar bamba jihaar ñoom jihaadu nafsi boobee sëñ saa ngi ko naa fi xabsi kon jihaar naak ay noonam yi gën a jege taqook moom muy nooni biir ba not leen ñoom ñëpp ci biir dund ko euh, mu jihaar ak nooni yàlla yi noon yi ci bitti mooy nooni yàlla yi di nooni nooni lislaam mu jihaar ak ñoom ñoom itam ba not leen ba gàllankoor gi ñu bëggoon gàllankoor diine mu Euh, mu mu dàkk ko mu mu ko ba yëkkati diine tasaare ko saxal ci nit ñi euh, ba la noon ba doon mébét amu ko mu wax ne jaahatu bil xatti adu wallahi ashrata awaamin bi zikrillaahi jaahatu bil xatti sinina waxdi man lam yakun muwaxidan za jahdi min aami jaysasin li jaksasi wa qabila aljamia aama haksashi law annani lam atruki alkitaaba mujahidan biha zawil itaaba la maata bil wabaayi kullu kaafiri in lam yatuubu lillahi alxaafiri lakin afawtu an jamii annaasi li wajhi rabbin muhlikin xannaasi wal aana qad saraftu xattiya ila tajdiidi diinillaahi waahibil ilaah kon jihaar nag noonu yàlla yi ci xalimaam ba daan leen ci biir dundam gu tedd googu mu jaamu ci yàlla jaamu yàlla goo xam ne kenn mësu ko koo jaamu te kenn dootu ko ko jaamu ndax la ko yàlla mayoon ci jëmmam ci ay kawteef ak i kàttan ba muy wax naan euh, ba muy wax ne suñ borom may na ko ci jëmmam euh, ataani allaahu ataani allaahu fi ruuxi wa fi jasadi maa laa yuraa li zaati bila tuhami yàlla may na ko ci jëmmam ak ruuxam loo xam ne dee su ko gis ku dul moom loola tax na mu mu àgg ci jaamu yàlla loo xam foo xam ne kenn musu fa àgg bay wax naan ibadatina faqat ibadati gayrina wa billahi min iblisa ma charrihi uzna looloo tax mu àgg ci boroomam foo xam ne kenn musu yegg mu wax ne képp ku ma bëgg a xam di ma natt ci li nga ja li nga li taarix di nett li ci jaar-jaar yi ñu wax ñu njëkk ña yaay kam ma gën a réer jaamub yàlla la bu màgg bu yàlla tànn ci biir ay jaamam jagleel ma lu mës ci jagleel kenn loolu it lu def la ci ak dundam mu bokk ci lim def ci biir dund gu tedd googu liggéeyal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba àgg ci fu kenn mës ta àgg te kenn dut fa àgg di wax ne man zanna annahu abada yurdihi billati ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anni alxadim bima wana an mislihi kullu xadim liggéeyal ni ci yonent bi kon ci dund googu liggéey boo xam ne kenn mësu ko liggéeyal te kenn dootu ko ko liggéeyal loolu yàggale ko ci musa rëkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla donnale ko mu def ko mu nekk ki ko donn ci zahir donn ko ci baatin mu jagleel ko ci ay may loo xam ne xel daju ko mu dem ci dundam ci jëf ak ku farlu ba yàlla fay ko payiinu mboolem ñi muy fay ñëpp ca ña gën a kawe ci ña ko daa jaamu fay ko li muy fay lim daa fay yonent yi fay ko mu daa fay ñi ñu soloo fay ko lim daa fay malaaka ya fay ko mu daan fay saxaaba ya ndax kenn ku nekk ci ñooñu niroo na ak yow ca na ngay toppee yàlla ak na ngay jëfale yàlla ba pay ga nga yeyoo ci sa boroom mu yeyoo gu mel noona xustu ujuural ambiya wa rusuli ka saxbi wal amlaaki indal mursili mu dem ci jëf liggéey yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa ba yàlla dajaleel ko jox ko loo xam ne ci ay may ma see su koo jox nit dee su ko te de su ko joxati kenn ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa ak ci baaxuk yàlla moom nga xam ne moom la doon jaamu di wax ne jamaatalii maa lam yakun wala yakun li mumkinin yaa man lahu kun fa yakun lii lépp di ay lu jëf yu màgg a màgg yu raw xel ak yu ñu mënta wax yoo xam ne jëf na ko ci dund gu tedd googu ba yàlla wàcce ko ci ñaar fukki fa guddi ci bisub altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru tamxarit ñu indi ko Touba ci guddi ñaar fukk ak juróom-ñeent ci guddi fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett fukk ak indi ci guddi fukk ak juróom-ñeent guddi ñaar fukk mu fanaan si fi di xew-xew bu màgg a màgg boo xam ne buñ ko dee fàttaliku war nañoo seetaat sunu bopp sant yàlla bu baax a baax a baax ci boole gi mu nu ak moom waaye bàyyi xel bu baax it ci lu ñu war ci suñu digganteek ak ak suñu digganteek suñu borom di fàttali ko lam daan wax naan layoon na ma ak yéen fii ci àdduna njëkk fañ jëm wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa ngeen jàng kon ñu war a tënku ci am njàngaleem bañ a def lenn loo xam day wuuteeg lam daa wax mbaa lam daa jëf mbaa li nga xam ne moom la bind bàyyi ko fi euh, ñu war a tënku ci kilifteefu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu batal nekk benn war a farlu bu baax baax ci jaamu yàlla farlu bu baax a baax ci liggéey waaye farlu bu baax a baax ci liggéey Sëriñ Tuubaa ci liggéey lislaam lii lépp ay yëf la yoo xam ne war nañ cee dellu si ay njàngat ci xew-xew yu demee nii ñu ngi tënk fii kàddu gi di ñaan yàlla sàmm kilifa gu mag gi Cheikh Sidil Muxtaar sàmm mboolem euh, kilifa yëpp sàmm nu nu taalib yëpp ak juddu yëpp saxal nu ci ak njub te may nu mujj rafet wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa